mécanique bi ngeen jàkkaar lool Serigne Mboup bu CCBM moo ko yëkkati jébbal ko waa Touba ca kanam def ko àddee Serigne Touba ngir jàppale leen ci liggéeyub assainissement bi nga xam ne moom lañ bëgg a amal ci dëkk bu sell bi di Touba. pelle mécanique bi nag ñu ngi ko xayma lu ëpp juróom fukki million ci français fa Serigne Mboup jox ko waa Touba ca kanam abalu leen ko waaye da leen koo jox àddiya ngir liggéey bi nga xam ne moom la amal ci dëkk bu sell bi. ñu mën di ko wéyal ndax nekk na jumtukaay boo xam ne Touba ca kanam dañ ko yittewoo lool loolee sax moo tax fan yi ci ginnaaw ñu jëndoon ci benn bu yees waaye liggéey bi nga xam ne moo jëm ci assainissement bi tam war a yaatu tañ soxla ci ay jumtukaay yu bëree bari moo tax sëriñ bu yëkkati pelle mécanique bi muy bu bees tàq daal di koy jox waa Touba ca kanam def ko àddiya pel mécanique bi nag sëf nañ ko ci oto bi nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool indi ko fi nga xam ne moo di ci Touba ngir jébbal ko waa ca kanam lii nag di jëf ju am solo joo xam ne duñ ne guleet ndax sëriñ buub lépp loo xam ne dafa jëm ci yoonu murit saa su ne da ciy taxaw di ci jëf te boolewu ci wax